asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu fii ci saxukaayu muxaddamatul xidma xam nga ne baaxoon nan ñaar fukk nag juróom-ñeent ci weer ne sëñ bi yebal na ci jumaa ji ñu yéene fi ne nañ séentu weer wi te lu ci waaj xam nga ñëw yégle ko waa muxaddamatul xidma nag am nañ farlu goo xam ne bu mbir yi jàllee ñu jottali lañ jëlee ca loola. moo tax nu teew fii di leen jottali ni deme demee biñ ko yéenee ba noppi dañoo nekk ci soowu jumaa ji di taatan xibaar yi ci gox yi biñ ko def taatanee nag jot nañ ci euh, gox yu baree bari ne weer yu feeñ na biñ biñ loolu amee nag duñ doy loo lool rek dañoo daal di jokkoo kër Cheikh Mouhamadul taxa yëgal ko ko biñ ko yëgalee yëgal ko ñi ko gisit mu ne kon loolu doy na sëkk kon nañ yëgale ne suba ci gaaw bi mooy benn fanu rajab ndeyu kon ne ñëpp xam ne suba ci gaaw bi mooy benn fanu rajab ndeyu weer wi nag dëppoo màggalu sëñ Fallu ak kasu rajab boobu ñu ko tuddee nga mooy rañaanam yonent bi ak yéeg ci kaw kon nag noo ngi ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér te li ñu séentu lépp ci li li mu naan lépp mu def ko ba dolli ca leneen te ànd ko moom day sant nag ñi ci jàpp ñëpp rawatina waa mu Muxaddamatul Xidma ñii may wax ndax ñoom bu ñuy séentu dañuy dikk toog nun di taatan xibaar yi ak a jokkoo gox yi bañ am liñ ca lañ ci jëlee ci résultat ñi door a jokkoo kër sëñ Muntaxa bu ko defee ñu door koo yëgle yëgle gi ñu ngi ñi dañ ciy xër lool lool ndax tasa ngir ñoonu gën a jekku tasaare gi waaw ñu xam ci loolu lépp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.